jërë ngeen jëf mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site internet bu Sénégal 5 TV tey nag ñu ngi leen indi seen décortique du jour bu seen série infidèle épisode 40 ñu dooree ko ci séquence bu njëkk bi ñu gis ni kii di jaara ak xaritam bi di Julie ñoom nag daal dina ñuy am ab relation bu sincère euh, di ab amitié bu dëggu euh, kii di Capo nag gis nañ ne dafa nekk koo xam ni euh, xol bi dara nekku ci waaye dafa nekk ab farceur ginnaaw ba mu jàppante ak kii di Julie moom tamit moom Julie nekk naa koo xamante ni nii dafa neex làmmiñ rek waaye daraay problème amu ko ñu ñëw ci séquence bu deuxième bi foofee nag ñu ngi gis kii di As moom nag mu ngi woyal rek di def ay jëfam yu ñaaw kii di ñi laan nag euh, moom mi nga xamante ne ni oto bi ko ma jaaga jox rek la teg bët wante mënul fexe ba moomal ko boppam maanaam moomal oto bi boppam di ko dawalal boppam As nag xamal ne ko ni bu buggee jox ma jaaga li mu bëgg ba pare ñu gis ni ñilaan eh, xam na ni as daf ko xemmem ñoom seen àdduna dafa mel ni rek si lu mel ni lañu ko bëgg tekk te xamuñu conséquences yi leen ci nara fekk eh, ñu dem rek ci séquence bu troisième bi foofee nag ñu ngi gis kile di mbayang daal nay dem rek ci avocat bi di Keith moom nag daal na koy wax rek ay jafe-jafeem ngir mu jàppale eh, ko si ndax kii di Abdou di jëkkëram daf ko rek fase daal na koy génne it këram waaye dañu gis ne kii di Skate dafa nekk avocat bi nga xamante ne ni euh, dañ koy corrompre ndax papier yi mbayang euh, yore ba ci xëccoo kër gi ak euh, waa kër Abdou moom moo ko signé woon moo ko ci jàppale woon kii di Keyti nag bu njëkk ba bëggul woon na euh, jàppale kii di Mbayang wante xamal na ko ni bu ko jàppalewul moom Mbayang dina dévoiler vrai facette kii di Keith ñu ñëw ci séquence bu quatrième bi foofee nag ginnaaw ba Vivi ñëwee ci kër kii di Tima doon na rek euh, jooy jooy yu metti Tima nag jaaxle woon na loolu Vivi nag wax na ko ni Badou moo ko teg li ko dal moom ak Sonia si la Tima yaakaar yi ni que euh, kii di Badou dafa rek war a ëmbal Vivi bi Vivi nag ci la koy soog a yëgee wante ginnaaw ba la ko Vivi daal di xamal ni dafa rekk euh, am sida moom Vivi moomu le tamit daal di nay rekk ñëw moom it ak ay jooyam euh, wax na nag lépp lu mu jot def ak fi mu jot a jaar ak ñi mu jot a la naka noonu la nag lañ daal di gis seen xarit bi moom tamit daldi di nay rek ñëw daldi wax moom tamit fi mu jot a jaar ak ñi mu jot a sekkal ñoom nag ginnaaw ba ñu waxtaanee ci seen biir ku nekk daal di wax fa nga jot a jaar euh, ak ñi nga jot a sekkal daal di nañu seetlu nekk ne ñoom bokkoon nañ rek ay góor yuñ daan sekkal naka noonu la rek gis nañ ne réccu nañ liñ doon def démb waaye réccu nag dafay fekk jëf daal di wees ñu ñëw rek ci séquence bu mujj bi foofee nag ñuy gis ki le di canaar ginnaaw ba mu yóbbu kii di euh, xaritu jaara bile di Julie eh, mu koy yóbbu nag ci këram ngi rek mu ñibbi ñoom nag ci yoon bi daal ñuy amal ay waxtaan yu yaatoo yaatoo yaatu ba sax ca naar doon koo xamal ni rek dafa bëgg mu wax ko ni euh, ki jaara di bëggante bëgganteel euh, ginnaaw nag ba mu hésité moom nag kii di Julie daal na koy wax ne rek jaara bu dëgg neexee rek yow mii la daal di bëgg yow rek la nopp ndax yow lay waxtaanee guddi ak bëccëg loolee nag daal di nay choqué kii di canaar ndax musu ko woon foogee bàyyiwu ci sax xel ba koy xalaat mbokk yi lii lañ leen indi loon ci seen décortique du jour bu seen série infidèle ñu ngi leen jox dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i décortique balaa boobu nag bu leen fàtte abonné ci sunu chaîne youtube bu Sénégal 5 TV jërë ngeen jëf mbokk yi Thank you